ana président soxna ñang waaw gaa ñi nag nee nañ doyal nañ ci yére bu weex bi ah dama ko naroon a waye bay fi tas rek waaye nee nañ ma dem changer yére bi waa asalaamaaleykum waa grand théâtre di leen nuyu di leen ziar di ñaanal Sadbou sa bés bi yàlla nay sa njëglaay ci darajey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sat bu yaa baax présidente Aïssata Mbaye caaroy Biafra moo ma yónni ci yow di la ñaanal yàlla sa bis bi yàlla nay sa njëglaay ndax dañ ñoo bëgg di ñu tàntal yëg ñu safoo ñu faale ñu waaye nag nii nga mën a mel na sa yaay ngi nii toog tubaar fa kàlla présidente Aïssata Mbaye moo la jox enveloppe bi nee na xam nga yàlla xam na la ñaanal yàlla sama rakk ju baax ji bëgg ko Omar Diouf waa na bi yëpp topp ci ginnaawam yàlla na yàlla dolli jàmm jërëjëf lii ñaawul jërë ngeen jëf ñëpp nañ toog doomu bàyyi naa moom du Cheikh de Thialaw moo yëkkati kàddu sherif Alwali ki ñuy bëgg a jox kàddu gi nag moom la maamam dégg nabiyun azimul qadri bil xaqi mursalu ki ñuy bëgg a jox kàddu gi moom la maamam dégg nabiyun azimul qadri bil xaqi mursalu yuwaalu bihi muskaana tiflan wa yulxalu fa lillahi minhu wa huwa ala wa akmalu màggal leen maamu Chérif alwali aminun li irsaadil ibaadi mu ahalu ay dara samaam habibun bi asraaril qulubi mu nëbb ay dara samaam afaada nada faydan wa amala saadatan fa saasa bi zaakal xalqi liinan wa siddatan samaamay sayduna muhammad moo dégg fa yaa habaza minhu liman saa umdatan imaman li rusulillahi badaan wa awdatan ay dara samaama dégg ala nabi haadi l amin wa xaatimu nabi yasin taha imam al mursalin ahmaduna littaibi samaam sayduna muhammad moom kese moo dégg xalifatullahi fi l mulki l mudaafiluhu wa fi tasarrufi bil ikrami woon nuzuli sa maamay sayduna muhammad moo dégg samsul wujudi wa arsil kawni kursi wa malja al xalqi yowmal xuzni wal wasali moom la cheikh ismaane woon ngari njimen muhammadu njimen nelaɗo ahmadu mada zamani sarmada yo allah juula ahmadu njimoɓe tinnoɗen njimen nelaɗo kaddi bawɗe men yo allah juutnu balɗe men koɗen e yimde ahmadu moye mamu chérif alwali doomu cheikh na mouhamed badal doomu cheikh al mahfou doomu cheikh na cheikh sadbou doomu cheikh na mouhamed badal doomu sohna aminatu bintu mintu cheikh abdaati cheikh na mouhamad badri ibnu mamin sama cheikh na wul mamin moo dégg maa naa la fadlan ka fadlina walaw fudala min majidin xayrina bal innana fudala sama ma dégg inna banu fadlin laa nabtaxi badala bihi wala yabtaxi kalla bina badala yal nañ fi yàgg te wér cheikh biram bis ah cheikh al mahfu doomu cheikh al hadrami cheikh al mahfu doomu cheikh al hadrami doomu cheikh al xalifa cheikh al maxfu doomu cheikh al xadraame doomu cheikh al xalifa cheikh al maxfu borom xaala ubayduhi al xadraami la zaala fi lutfi ilahi naami moo ma sargal ci sama sang bi ku tedd kii toog muy alqaahidil jamaahiriya al islamiya sat bu kii moo ma firil wa jaalni yaazal minnati fawqa fuhulil ummati fa axzana bi sunnati yazdaadu fi kulli sana moo ma firil wa jaalni mimman jaddada diina nabiya ahmada wa fiika raaxa wa gada yazdaadu fi kulli sana moom shérif alwali mooy satu saadu abihi jadduhu xayrul wara wa dammuhu min dammihi bilantira saadu abihi wa saadu ummati nabi wa saadu man mahabba duuna riyami cheikh bi dem bismillah baal leen ñu yéen kenn du leen arrêté waaye bu sang bi toogee na ma wax ay kàddu baal leen ñu rek mu wax bu daanalee ngeen ñëw bu daanalee cheikh saad bu seen lépp la dina ñëw kii ñu bëgg a jox muy jottali shérif moom la cheikh saad bu téewoon ci loxo maamam cheikh deccalaw téye loxo doomam ju baax ja cheikh mahfu ndi ko yaa ngi mi ngi yéen laa boole fi dunya wal kon cheikh biram mu cheikh na cheikh saat bu mu cheikh na cheikh mamadou mu cheikh na cheikh decalo kaddu gaangu jërëjëf alaaj cerno ñi ngi nuyu mbooloo mi fi teew di nuyu bu baax di ziar suñu sang bu tedd bii chérif alwali maani njaay am naa yore danga koo way léegi rek kuy sa maam Seydina Mohamed fala way yam kuy sa maam Seydina Mohamed fala ndam yam fala tiitar yam waaye toogaayam bii da koo de boo demee ngewul Birame Sele gën a jógee maamam moo daan atte ñëpp soxna moo ne soxna soxna Maane Njaay mii wéy juram bokk ci jaraaf njàmbur yi nga xam ni ñoo fa newoon di àtte waa tund wa soxna Maane Njaay la tudd ma Ngoone Njaay ko jur jaraaf bi dama jigéen maare ko jur jaraaf may sa gel jaraaf ma jooju Anta Kumba Kamara jaraaf Birama Fatim Bisis Dia Masamba Waali jëleen jëleen Birem Njéeme Kurakan Tase Daagu leen jëleen may layti layti cukuli cukuli njugulaan njugulaan sare sare njaajaan njaay kon yow tabarkàlla macha allah bu ñu woon ngay àttee ngéwul Ibrahima Sall ak li ko wër kon sa toogaay bii dafa tolloog sa Mohamed saa sallam Cheikh na sat Sadbu kenn amul lu ko dab kenn gënu ko Adja ñi ngi lay nuyu waa Ziguinchor ndeysaan ñu ngi koy nuyu bu baax Ndey Sadio mi ngi nii jóge ba Ziguinchor kon El Hadj Cheikh Biram bisimilah présidente association Al Jamaria présidente Soxna Ñang mi ngi nii toog président Lamine Diagne mi ngi ci mbooloo mi ak ñi nga xam ni ñoo seq nag Al Jamaria gépp Cheikh Biram bisimilah. mbooloo mi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu noo ngi mbooloo mi ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam ñun nag bu shérif yéegee fii woonu war nañu fee war ñëw tey ñu teew fi ñaari cër mooy teeru en tant waaye cëru ànd ak sunu soxna su mag muy Cheikh dey calaw Seck ñu ànd ak soxna faama teew fii te ñépp xamoon na diggante sunu waajur sëriñ naa Mamadou rahmatullahi alayhi ak diggante sunu waajur cheikh na Mouhamed Fadil wulu cheikh al Mahfouz wulu cheikh na Cheikh ñi ngi nuyu ñëpp ci guddi seyduna Mouhamed sallallahu alayhi wa xam naa liñ ciy wax rekk du bari ndax weer wii Cheikh Saad bu Samb tànn pour salgar ci sangam bi fii ci Sorano ci kanamu jëmm yu tedd yi ci weer wii ci la Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu boroom invité ko woon benn invitation boo xam ni benn la du amaat bi mu demee moom Seyduna Muhammad gis na genn dex goo xam ni maa uha ahla min al asal wa abradu min al salji wa atyabu min al misk dex goo xam ni ndox ma moo gën a neex lem waaye moo gën a sedd galaas waaye moo gën a neex laj ko li ñu misk seyduna muhammad ni jibril kan moo moom dex gi seyduna muhammad ni ko ki moom dex gi mooy ki julli ci yow yow seyduna muhammad ci weer wi mbokki jullit yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam guddig miraaj muy subhaana alladi asra bi abdihi leylan min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa alladi baarakna xawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiu albasir loolu mooy li commencé makka ba baytul muqaddas waaye miraaj mooy li commencé ca kaw ba jëm sidratul muntaha ba weesu ko yonent bi dem na ba jibril reculé yonent bi avancé jibril yonent bi geesu jibril ni ko afi misli hada al makaan yufaariqu al xaliilu xalila ndax barab bi la xarit di tàqali ko xaritam jibril ni seyduna muhammad yow ci leer nga jëm te leer nga te leer ak leer ñoo mën a ànd man nag bu ma doxee benn pa dinaa lakk ca la alquran ni wa ma minna illa lahu maqamun maalum wa inna la nahnu saafuun wa inna la nahnu almusabbixuun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na gis na guddi googu genn dex goo xam ni genn géej goo xam ni laa yaalamu miqdaaruha illa allah kenn xamul dex googu dayta la fan la yem gis na menn malaaka mu tong ca dex ga ca géej ga yor melo picc am na juróom-ñaar fukki junniy laaf yonent bi ne na bi jaam bu jaam bi ne subhaanallah malaaka ma day baj baji fa mu ne tàllal laaf bu ne subhaanallah day baj baji bu ne walhamdulillah mu tàllal juróom-ñaar fukki junni laafam yi bu ne wala ilaha illallah mu naaw bu jaam bi ne wallahu akbar malaaka moom nuur ak juróom-ñaar fukki junni laafam yi ci biir géej gi bu jàm bi ne eh, wala hawla wala quwata illa billahi al ali al azim malaaka ma fitti yëlëb juróom-ñaar fukki junni laaf ya laaf mu ne juróom-ñaar fukki junni doq wadd ca malaaka moomee di sàbbaal di jéggulul ka wax baat boobee ba saa di taxaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Moussa dañu ko woon ana ka mun a Moussa dañu yàlla ana kalimuka wa muhammadun habibuka waaw yàlla fa mal farqu bayna alxabibi walkalim muusa dani yàlla man maay sa kalim wa kallama allahu muusa taklima waaye yonent bi mooy sa xarit kon lan mooy différence entre kalim ak xabib yàlla ni ko ah muusa kaay nag alkalimu yamalu bi rida mawlaahu walxabibu yamalu mawlaahu bi ridaahu mu ni ko yow muusa yaa ma bëggal sama bopp man yàlla waaye yàlla man yàlla maa xool seyduna muhammad mu gënal ma ñëpp man yàlla buur bi azza wa jalla Moussa yàlla ni ko Moussa ba ma lay wax di déyanteeg yow yaa nga woon ca tuuru Siina te dama ni la iqla na'layka innaka bil waadil muqaddasi tuwa ba nga bëggee dox ak say tànk ak say dàll dama ni la simmil say dàll ndax yaa ngi ci barab bu tedd bi waaye nag seyduna muhammad guddig isra ak miraaj bu ko sunu boroom di woo alquran naan summa dana fa tadalla fa kaana qaaba qawsayni aw adna fa awxaa ila abdihi maa awxaa maa kazzaba alfuaadu maa raa yonent bi dafa bëgg simmi ay dàllam yàlla ni ko dus ala bisaatil unsi wa laqad istafaynaaka wa anta sayidul mufaddal yow yonent bi bul simmi say dàll tapis rouge bi buñ ko lalee yow sayduna muhammad yaa tax doxal ci kaw tapis tapis rouge bi man maa la tànnal sama bopp man yàlla buur bi azza wa jalla kon sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy benn bi nga xam ni moom la yàlla tànn mu gënal ku ñëpp muy sayduna muhammad cheikh na cheikh saad bu ni jaalahu imama rusulihi lkirami fi lmasjidi al aqsa wa fi kulli maqaami jaalahu wasilata al anaami wa qassahu bi azami al azaami da ma daathu qawmu isa fiihi wa kum bi kulli xasanatin alayhi kon noo ngi sant yàlla bu baax a baax ci sargal bi ñu sargal sunu sang bi dama ni ko yow ay dara yow Chérif ay dara yii yaa ngi ci di nga muñle di nga mosle waaye di nga joxe masala sa maam Cheikh Al Mahfou bu ñëwaatoon jamono wala sa maam Cheikh na Cheikh Saad Bou wala sa baay Cheikh na Mouhamed Fadel wulu Cheikh Al Mahfou du ni la sanseel sa toogaay danaan la ni nga tooge noonu la sa jikko rafet na sa jëf rafet na te jikko mooy diine ku la gën a rafet jikko moo la gën a rafet diine kon yàlla yàlla defal la jàmm ci barke yonent bi Chérif Alweli nee na ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax di julli ci sang bi di seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu sama doomu sëriñ yi fi nekk di waa kër cheikh na cheikh saad bu waaye di waa kër cheikh na mouhamad fadilul umaamin di leen ziyaare bu baax di jaar ci ñoom di jaar ci sunu bunt di cheikh na cheikh saad bu di jaar ci ñoom di ziyaare sunu maam cheikh na cheikh saad bu di ziyaare kilifa diine yi fi teew yépp ak cheikh yi sunu maam cheikh ne cheikh Saad bu fi teew yëpp di nuyu sunu yaay soxna màggat di waajuru cheikh Saad bu sàmm ak Baye Assane di ñaan yàlla cheikh Mbaye Ndiaye sàmm yàlla yàlla yokk leeram ci barzaq rasulillah Chérif Alwali nee na ngi gërëm képp ku fi teew képp rek ku fi teew Chérif Alwali nee na noo ngi lay gërëm rawate na ak taalibe yi taalibe Cheikh ne Cheikh Saad bi yàlla na ma leen yàlla fayal sant nañu leen gërëm nañu leen bu baax nii ngeen jàppe Saad bu te saat bu ku ko jàpp téye ko man mii nga jàpp man nga téye ndax ñetti yi daje na ci Cheikh Saad bu Sàmb mi diine ngor ak kóllëre la bàyyam defoon diine ci dara waxi keet ku dee nag bu saxee ndund yaa tax ndund yaa tax kon maa ngi gërëm kilifa yi di gërëm sa kilifa Mouhamed Samb mooy Modou Samb bi Cheikh Mbaye Ndiaye Samb dëddoo dañoo gën a dëgëral waxam yeesal ko sama diggante ak saat bu saat bu nag macha allah ndawalu guddi la yaakaar naa ni bu ma waxee loolu ñëpp war nañ koo gëm saa yu tegee tànkam lu ma neex rekk lay def lépp lu taalibe di defal sëriñam Cheikh Saad bu sàmm mii defal na ma ko ñett rek laa ci lim sama yaay ji ma gën a bëgg ci àdduna di soxna Maane Njaay saat bu ab taawam moom la ko tuddee bi ci des sama baay sama kilifa di Cheikh Maxfu di xalifa sunu maam Cheikh al Maxfu doomu Cheikh ni Cheikh Saad bi saat bu yemalewu ko kenn beneen bi ci des mooy mooy diineem rafet na te boobu moo jiitu lépp kon saat bu Chérif Alwali nee na na nga dalal sa xel te nga xam ni guddi ak bëccëg nee naa la jàkk te duma la du mooyu mukk insha allahu taala di woo nag képp ku fi teew ak ku may dégg le 12 fii ci Grand Théâtre di sama bisu bopp di bisu Cheikh fu Ansar doomu Cheikh Al Adrami doomu Cheikh Al Khalifa doomu Cheikh ni Cheikh Saad di ñaan yàlla yàlla nañu ci yàlla yóbbu ci jàmm am ci ndam lu dàq ndam lañu daan am ñoo ngi nuyu autorité yëpp di nuyu soxna Sira Ndiaye sama jigéen sama xarit wax ji dañ koy gàttal waaye kenn ku ne na nga xam ni sunu xol sunu xel sunu làmmiñ tudd na la di nuyu njabootu sunu maam Cheikh ne Cheikh Saad buy jigéen yi fi nekk waaye di sant di gërëm Adja Aminte Njaay di ku baax ku gore ku bëgg yonent bi di sama yaay di sama xarit ak ñi mu àndal ñëpp maa ngi leen di nuyu maa ngi gërëm bu baax soxna màggat yaayu sàddu lii lépp moom la moo ko liggéey moo ko xaar ba yàlla ndil ko lii kon yàlla na fi yàgg te amug wér yàlla may ko mu fekke lépp incha allahu taala maa ngi santaale képp kuy jullit ginnaaw bi ma gërëmee waa aljamaariya al sama taalibe yu baax yu gore yi bëgg ma lool di ma defal lu ne waaye lépp li ma gënal ci liñ may defal bëgg gi ñu bëgg yàlla soppeeku Seyduna Muhammad bëgg Cheikh ne Cheikh Saad bu maa ngi ñaan képp kuy jullit te teew fii dañu am sunu mbokk bu feebar di doom ci daafal yàgg faju mu sonn ci lool kenn ku ne xoolal ci sa bokk yàlla mooy seet ku ko neex mu teg la nattu te kon lu waay am damay ñaan ñu indi ko fii ñu dimbalee ko li waji llaahi taala te allahu fi awni al abdi maa daama al abdu fi awni axiihi di gërëm foofu bitig bu baax chaque année ñoo may solal lu ma sol ñoo ma ko jox ami fofana ak i rakkam ak jaandey mareem ak soxna xadi ñoo ngi gërëm bu baax kër yi diine yëpp soxna ñang Cheikh Saad bu Samb moo la jox trophée bi pour kuréel gi yëpp di leen sant di leen gërëm bu baax loolu la ci amoon bu baax bala ñoo woy shérif nee ñu indi li mu wax léegi te yàlla rek tax Cheikh Saer Diop